keroog ba mu jëlee soxna Saarata. Mhm. ñu dund ba mu am juróom-ñett fukki at amul doom. mu jël guneem sa Haajara may ko ko. Mhm. mu am Ismaayila yaay booy xaw fiir ñu daal di koy yàlla ne ko toxal ko yóbbu ko ci suuf sa nga xam ne falaay waajale ki gën ci kaw suuf ki tax ma bind asamaan ak suuf ki tax ma bind àjjana. Mhm. mu dem dëkkal ko foofu foofu mooy Kaaba ka gis nga boo gisee kaaba gi di nga gis benn rond bu def nii. Mhm, benn genre cercle. cercle boobu. Mhm. foofu la woon dëkkuwaayu ya Haajara ak Ismaayila moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax Aïcha. Mhm. ne ko gis nga lii ci kaaba gi la bokk. fa la ko maam Ibrahima bàyyi. yàlla ne ko dellul na kër gu mag. dëgg la nga xam nga jullit day maandu dëgg la doo nekk ak sa soxna rek bàyyi ñu ci des falaata zaruha kal muallaq mm-hmm. gis nga góor ñi nga xam ne dañuy jeng rek mm-hmm. fàtte seen yeneen soxna yi euh, war nañoo jàng xissa bi surtout comme foofu la ñu jëkk a tabaxe ci kaw suuf kaaba gi malaaka yee ko tabax mm-hmm. ginnaaw gi maam aadama tabax ko ginnaaw gi fondement bi nag maam ibrahima ak maam ismaila ñoo ko yëkkati te ismaila mooy maamu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax yonent bi ne ku fa julli mhm. julli nga ci biir kaaba gi moo tax nit ñi di buuxante di buuxante mais du lépp nag mhm. dafa am quelques mètres dafa am ruq boo xam ne ca waañ wala bokk ak ca wanag wa bokkul mhm. ci kaaba gi fi ñuy fi ñuy dugal bopp yi nag foofu mooy xajarul aswad waaye yow ay solo lu àjjana la jógee eh, macha allah dafa weexoon tàll comme xaalisu gal bakkaaru nit ñi moo ko ñuulal noonu léegi ah. nag ay quelques fellet moo ci des ñu lu mat juróom-ñett ba juróom-ñeent boo fa duggee hmm. moo tax bu ma egsee ne ko photo ma <laughs> mu photo la <laughs> bu yowmal qiyaamatee boo ñëwee indi woo benn yiw mhm. mu ne yàlla yaa ma joxoon garanti ne képp ku ma fóon ci àdduna hmm. wala nga tàllal ma sa loxo nuyu ma hmm. ma warlu la àjjana kii ci la bokk yàlla ne ko luy firnde bi mu ne ko photo say daa ngi ni daal di koy jox yàlla ne kon ànd la moom dem àjjana ma màkka la fa nekk rek baabul multazam <laughs> seize yàlla ba ci suufam ngay langaamu foofu mooy buntu baabul multazam nga tourné dem rukkunul yamaani rukkunul yamaani sa loxo ndeyjoor nga koy nuyoo mhm. bu la soree kenn du ko joxoñ kenn du ko tàllal doo ko fóon jàllal yaa ngi fan fi maam Ibrahima taxawoon ne yàlla ne ko wooteel mhm. aj mu ne bu ma wootee kuy dëgg ku koy dégg mhm. maag sama soxna ak sama doom rek a fi nekk mu ne ko wooteel may jo wa azzin linaas fil hajji yaatu ko rijalan nee na wooteel xaj wooteel ak ñëpp dinañ la wuti yaa tukari jàllan wa ala kulli daamiri yaatinaka min kulli fajjin amiq lu àdduna sori sori dinañ ñëw wuyu si la ñun Afrique gi nga xam ne ca cat ca cat ba la ñu dëkk mhm. tey at mu jot fi mu nekk war nañoo yóbbu euh, douze mille huit cent soixante ren ñoo war a dem macha allah dix mille deux kii xam nga 10 000 ñun privé yi ñoo leen di mhm. man ba groupement bi ma bokk muy Capio dinaa yóbbu 560 personnes ren. incha allahu taala tabaski bi waaw ci aj gi mhm. waxuma nag umra bi umra moom parce bi ins bi bari gis nga nag loolu bu ñu jógee bu ñu demee ci yonent bi nag li ñu ko mm. dem masjidu Quba mhm. dem masjidu Qiblatayni Quba mooy jàkk ji nga xam ne samedi bu jot yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da doon jógee fee mu tëdd dëkkoon fa dox wala mu war dem Quba julli fa ñaari rakka mhm. yonent bi ne képp ku fa julli ñaari rakka mhm. dafa mel ni ànd nga man umra ku ànd ak yow umra yonent bi loolu la dese ala umra kafaaratun lima baynahuma ala umra mhm. boo umra day weddi lépp loo mës a def yàlla baal na la ko ndax dañu ne alxajjul mabruur laysa lahu jazaun ilal janna aj bu ñu nangu mm. payam mooy àjjana yow laissez passer àjjana bi nga jëli nga dem nag fi yonent bi tegoon tànkam <laughs> uh-huh. julli fa nga julli ñaari rakka wëlbatiku dem masjidu ni xam nga bu njëkk ba julli ñi buñ doon julli mm-hmm. Jérusalem lañ doon jublu mm-hmm. foofu lañ jullee ñaari rakk julli jublu Jérusalem ci tënk rek yeneen ñaari rakk ñu jublu ci kaaba gi mm-hmm. yàlla ne yonente bi xad nara taqalluba wajhaka fi samaai falanuwalliyannaka qiblatan tardaaha fa walli wajhaka shatra al masjid al haram mu wëlbati ko jublu penku ñaari rakk yi mu jublu Jérusalem mhm. mooy qibla tey ni mhm. nga jóge fa dem saba masajid ya daal di ziyaare histoire la nga dem Xaybar mhm. euh, Ahzab dem fi fi ñuy jëkkee julli jumaa dem nag ca baqiul arqad lan mooy baqiul arqad mooy fi ñu tuddee suñu cimetière yi baqiya la ñuy wax mm. waaye baqiul arqad la tudd boo demee lu mat fukki junni saxaaba ñoo fa tëdd. macha allah soxna yonent yëpp fa la ñu tëdd ñaar rek ñoo fa tëddul. Mhm. ndax Xadija moom màkk la tëdd tëddul Madinatul Munawwar. Mhm. mais diggante boobu nee nañ kuñ fa denc àjjana nga jëm. yal nañ ci yàlla boole. bu ñu amee téeméeri at ak ñaar fukk. amiin yaa Seyda xanaa dafa gis ni cofeel gi yaayam amoon ci Seydina Muhammad moo tax. waaw xam nga yaay booy. Mhm. yonent bi dafa wax ne bu nit génnee àdduna mhm. iza maata al abdu inqataa amaluhu ila min salaasil mhm. tey jaaga fee mu tëdd léppam mhm. dagg na ba mu des ñett yi muy lan muy sadaqatun jaariya aw ilmun yuntafau bihi aw waladun saalihun yad'u lahu tey lu mm-hmm. baax lu mu doon def mm-hmm. moo xam teen bu mu bënnoon wala robine wala garab gu mu jëmbatoon mm-hmm. yu mel noonu nga xam ne day continuer yàlla dala koy fay ba keroog yowmal qiyaamati wala xam-xam boo jàngale woon wala nga fayoon ab oustaz wala oustazu daara sëriñu daara muy jàngale comme ni mu ko doon defee dégg naa ko xaw ma ko waaye dégg naa loolu ci moom man mii bi mu génnee àdduna États-Unis la ma fekk wàccal naa ko kaamil wallahi moom jaagate xaw ma ko jaaga li ko man su ma génnoon àdduna moom duma ko jooy. lu tax nga jooy ko dama rek lan la. man daal dama ko bëggoon rek ci sama xol te yàlla musul def nag ma gis ko waali benn yoon laa ko mos a gis ñu tase kaw lax mais waali itam ndeysaan dafa nekk rek doom joo xam ne yu baax yi muy def tax na ma bëgg ko xam nga sax man ndeysaan musique taxul ma xam ci lu bëri waaye léeg-léeg rek ma daal di tëj sama bënt guddee mhm. buy kii rek ma daal di àndi léeg-léeg ne daal di ne kaabatulaay tànk lay bañ waaye bañu ci mbagg rek ndeysaan xam nga rek yaa yaa Seyda moom def ko sama yëfi ajaratu rek ba daal di ñàkk toogaat daal ne waay waay Ali waay waali xale bi waaye moo doy waar waay sport la sport la <laughs> mu su ko defee Wally mhm. ma yërëm ko xam nga lu tax ma yërëm ko am na benn jour mhm. may xool muumi xaw ma ko musuma koo gis keroog bi ma gisee photom ak yaayam li may wax sama sœur bu tudd Ayta Njoon mhm. cent seize États-Unis këram laa dëkkoon mooy sama seede xam naa mun naa am dina seetaan émission bi dëgg la ñaari photo yooyu statut naa ko lu ma deux semaines sama téléphone ndax ñeewant muumi ñeewant yaayam nga am sa doom mhm. mu nekk sa xarit ñu xëy suba rek yàlla jël ko man ba mu demee rek laa tiitoon ci ay mbiram mhm. waaye nag mhm. ah yonent bi kat li mu wax yàlla may na ko ko wala dun saalihun yad'u lahu doom ju baax ju lay ñaanal xanaa kay ñaan ba ñaan ba egg kër yàlla wallaay taxaw ca kaaba gee jooyam yee yàlla du ko delloo macha allah bu soobee yàlla. Mhm. te yaayam sax liggéey na àjjana. lan la doon def. Mhm. ci li ma dégg. ne laa la xaw ma ko. Mhm. dégg naa sang ay néew. sang ay néew dégg naa dem umra. dégg naa saraxe dégg naa di defar ay kees. di defar lu baax yàlla xam na ne. dama ne woon man dinaa dem gis ko. ne ko liggéey bii ngay def dama bëgg nga gën koo def mu dëppook sunna dama bëggoon li ma xam ndax man tamit dama koy def dinaay sang ay niw mm-hmm. avant may def ak accident mm-hmm. bi am problème mu loxo mm-hmm. euh, ndax euh, bi ma accidenté léegi laa xaw a kii mais sama xarit yu bëri seen yaay yi maa leen defar ndax ñoo ma koo ki yoon defar sama ay waajur jàngal ko sama njaboot dama ne woon damay dem jàppale ko ci liggéey boobu yàlla seede na ne sama yéene la woon ba wax naa ci sax ak benn nit ba mu ne ma dinaa la yóbbu ci jaaga nga waxtaan ak moom yàlla dogalu ko coo kii coon sekk dem na yàlla na ko yàlla yërëm amiin coon it musuma koo gis dëgg la nag moom maa ngi koy wax ne mm. loolu mu ñaanal waajuram mm-hmm. na sant yàlla est-ce que xam nga yàlla nee na mu ne rus naa yowmal qiyaamati ma lakk benn bët boo xam ne mus naa génn benn ronkoñ ngir ragal ma wala di ma ñaan benn mm-hmm. benn ronkoñ yërmande ndax yërëm ko kon nag li ñuy wax mooy wala dun saalihun yadoo lahu doom ju baax ju lay ñaanal waaye yàlla na dund téeméeri at ak ñaar fukk di ñaanal yaayam waaye yàlla na ko yàlla may nag dee mënul ñàkk de uh-huh. waaye mën naa gëj yàlla na gëj ci seen famille allahumma amin yàlla nañu na fi yam ba ñu dundaat téeméeri at ba ñu naan ah famille coon de mm. kenn génnatu fa àdduna macha allah ba ci kanama kanama kanama ñu ngi ànd ak moom naqar bi nag mhm. man miinu ma leen mhm. waaye day jaaga mhm. wàccel naa ko kaamil jaaga saa yu ma ko gisee fotom moom ci tiktok bi mook doomam mook muumi muumi ndeysaan dama ko ñeewant image bi ni waaw vraiment dama leen ñeewant loolu moom yàlla laa ko seedeel ñu dellu si ci kaaba gi soxna gis nga kaaba googu dafa bëri ay kéemtaan. dëgg gis nga ba deux mille deux mille dix sept deux mille cinq deux mille six. Mhm. la ñu commencé fatt zam-zam bi ñun